maa ngi tudd Modou Diop Diawbe nekk chargé de sécurité de Khoudamoul Khadim sécurité prévention commité de veille et d'alerte ci ndigalul Serigne Amsa mu Serigne Abdoulaat ak Serigne Bassirou Thioro ak Serigne Abdourahim Fall ñu dénk ñu lépp lu aju ci euh, wormay dëkk bi ak kaaraange dëkk bi ci loo xam ne dañ koy ànd ak police ak gendarmerie ci li nga xam ne yoon daf koy tere ci dëkk bu sell bi di Touba. Euh, comme ni mu koy teree Sénégal fépp waaye ak loo xam ne ni tamit sëriñ bi moo koy teree ci Touba te duñ ko te Sénégal yëpp duñ ko fa teree. waaw jërëjëf mooy euh, fan yi ci ginnaaw am na benn góor jigéen bu ngeen doon dégg ni dañ ko arrêté fële ca jànnatu euh, yàlla dogal euh, ñu jébbaloon ko police bu jànnatu mu def ci liggéey bu am solo yàlla dogaloon nag ñu defeere ko yóbbu ko fi nga xam ne mooy Jurbel tey jii lañ doon def li nga xam ne mooy audience bi ñu waroon def fële ca grand tribunal grand instance bu Diourbel euh, man mii maa demoon taxaw ak moom procès bi ci ndigalul Serigne Amsam Sëñ Blaat ak Serigne Bassirou coro ndax yàlla day dogal képp koo jàpp mu dem ci yoon wala mu dem gendarmerie ñu war laa déglu ñu dem waaw ñun ñoo ko jàppoon. gannaaw bi nga xamee ni que yëg nañ ni ay nit yoo xam dañoo nekk Touba dëkk bi ñor leen waa jooju daf leen doon jéem a sàkku ci affaire góor jigéen. gëmloo ni ni moom la envoyé leen tam ay vidéo yu tegginuwut ay vidéo yoo xam ni euh, góor ak góor ñoo ci nekkoon di sëy ay vidéo yoo xam ni ay photo yoo xam ni ak ay son yoo xam ni doy na waar. gannaaw bi ñu joxee renseignement yi nag ci biir loolu ci lañ gëstu ba xam leen teeg moom ba fexe koo envoyé fexe am numéro ci bi ñu amee numéro fexe ba envoyé euh, ko photo jëmm rek beneen bu dul ñun. ci la commencé nag di ñu xamal ni moom góor jigéen la da koy dund. waaw da koy dund parce que ginnaaw ñun dañu saytu pour ñu say ñu xool dëkk bi ni muy demee képp koo xam ne yëg nañ yaa ngi yëngu ci loolu ak lu mel neneen loo xam ni yoon daf koy tere danañ la gëstu ci niñ ko mën a defee am na ci loo xam ni danañ ko transmettre police wala gendarmerie am na loo xam ne tam danañ ko defal suñu bopp ba pare jébbal leen ko ndax jaam loo xam ni dëkk bee koy tere te yoon terewu ko lu toll ci sept photo ak set vidéo yoo xam ni vidéo yooyu mu envoyé góor ak góor ñoo ci nekk di sëy am na ci yu ma sax ni ma moom la gannaaw bi ñu ko jàppee nag mu nangu ko ba pare ñu dem police mu nangu ko ñu def confrontation mu nangu ko yàlla dogal ñu ñu ñu demoon tey Jurbel taxaw ci biir jàkkaarloo ak président tribunal bu Jurbel euh, maa ngi koy remercier ci loolu mais am na fu ñu waxtaanee xawoon na bañ a déggoo ak le ak procureur. bon li nga xam ne moo ñu jaaxal mooy bépp góor jigéen boo xam ne jàpp nañ la yóbbu la quelque temps la ñuy def ñu bàyyi la quelque temps la ñuy def ñu bàyyi ci biir procès bi nag leeral naa procureur de la république ni ko ci ndigalul sëriñ bi la ñuy liggéey ci lu mel noonu ci ndigalul bi la liggéey ci noonu mbirum góor jigéen moom fu ne mën nañ ko faa nangu ba mu des Touba. fu leen neex nag nañ ko fa nangu ba mu des Touba wax naa ko tamit président bi ci sama kàddu yu mujj leeral naa ko loolu ci ci ndigalu sëriñ bi xamal ko ne ko tamit moom mayetuñ ko mu mu ñëw Touba mayetuñ ko mu ñëw Touba ndax ñiñ fi jàpp ci ay góor jigéen yëpp ñenn ñi demuñu police dañ leen a génne ak seeni i ñu dem seen yoon ñenn ñi yóbbu nañ leen police ñu yóbbu leen ñu yóbbu leen tribunal yëg nañ ni ñenn ñi yóbbu nañ leen tribunal mën na ci wax mën naa huit wala neuf kii moo ci mujj ci biir loolu nag euh, euh, yàlla dogal na am na avocat bu mu jëloon avocat bi xam nañ turam xam santam mais avocat bi mu taxawee ci baar bi moom li mu ko xamal rek mooy yow nangu woon nga ko te da nga koy dund da nga ni woon da nga koy dund kon nag li ci gën a leer mooy bu fekkee da nga koy dund na nga ko bàyyi soo ko dund tit bu ko dund wala lu ko moy danañ la rey ñu ko ci remercier ci kàddu googu mu jëloon ak ni mu ko gàttalee waxtaan Euh, euh, yaakaar naa ni lañ leen wax dégg nañ ko ba tax na nee nañ la fin bi la ñuy def délibération bi ñuy leeral ci turu sëriñ am sa ak sëriñ Bassirou dénk gi nga xam ne dénk nañ ñu ko pour ñu saytu ko Touba ci yooyu nga xam ne am na ñoo xam ne nii ni sëñ dëkk bi ni mel neexu leen ba tax na lépp luñ mën a xeex ci Touba wala lépp luñ mën a bëgg dégg ci yeneen dëkk yi di ko dégg ci Touba. nañu xam ni ñooñu di wane ni ay góor jigéen lañ ñooñu di wane dañoo contre sëñ Tuubaa ci dëkk bi ñooñu yaakaar ni mën nañoo dugal ci dëkk bi loo xam ne sëriñ bi ak ci façon bu mën a nekk nañu xam ni am nañ ñu fi nekk ñoo xam ni loolu la ñuy gëstu di ko xool di ko saytu bu baax a baax ñu koy leeral ki nga xam ne mooy président la république monsieur Macky Sall ak ministère de l'intérieur. kon nag ak ak yelleef yi ñu war a jox sëñ Tuubaa ci dëkk bi ñi ngi ñaan ñu gën koo yokk Tuubaa nag li nga xam ne sëriñ bi daf ko fi tere à mesure parti lépp loo ci yóbbu ci yoon du mel du du du fa nga bëgg mu yam fa du fa yam maanaam day mel ne dañ koy xaw a lu mel ne négligé loolu tam nañ ci bàyyi xel ndax loo loo wax ñu ne la luwaa Sénégal tënku ko maanaam nekkul ci kayit yi ma xalaat ni sëñ Ablaat bi muy def le 18 septembre 1980 bi muy def arrêté boobu di tere cigarette pon yamba ak ak drogue ak yu bëree baree bëri yaakaar naa loi Sénégal euh, ni ma ko bëgg a waxee mooy code pénal am na. code de procédure pénale am na mais code sëriñ bi am na borom dëkk nag ci dëkkam la mu bëgg ci dëkkam lañ koy defal loolu mooy li nga xam ne moo amoon tey euh, ci procès bi nga xam ne ñu ngi ko doon def fii ci Diourbel euh, waxtaan naa ci ah wax naa ak procureur li may wax ak moom wax naa président tribunal li may ak moom ña fa nekkoon yëg yëg nañ ko du ñu may kenn mu nekk góor jigéen Touba di di di black loolu tam ñi ngi ciy ñaan askan wi yëpp adduna bi yëpp l'islam bi yëpp ñu xam ni nit ñi daal ñi ngi am na ñoo xam ne daal l'islam lañ jàkkaar loolu bëgg xeex ak ñoom lislaam war nañoo jàllal suñu bakkan wadd sëñ Tuubaa war jàllal suñu bakkan wadd nañu xeex lii nga xam ne mooy affaire góor jigéen nañu xeex ñi nga xam ne ñoo contre sëñ ci dëkk bi nañu xeex ñi nga xam ne dara ñor leen lu def ay affaire banditisme ci loolu kon nag loolu laa ne woon naa ko wax ñi ngi interpellé ñëpp ci ni du ñu may Touba luy walaabul mën naa walaabul feneen waaye Touba moom affaire góor jigéen ak li fi sëñ bi tere du ñu may kenn ñu walaabul ko fi mën nañ nag kuñ jàpp buñ demee ñu bàyyi bu leen neexee mais fekk sëñ baa ngi moom dëkk bi mu Cheikh Mamadou Mountakha nekk fi di fi digle sëñ am Amsa dinu sant ak sëñ Basirou ku ñu gis nga def lu méngoowul ak yoon danañ la jàpp waaye ku ñu gis nga def lu méngoowul ak dëkk bi danañ la teg loxo